avant avons may def préfet de Foundiougne euh, bu ma le préfet Foundiougne qui est le préfet Tivaouane donc euh, def presque 15 ans d'administration biir territoriale bi ma paree euh, nekk na directeur de cabinet du ministre Abdelaziz Aziz Mbaye yàlla na ko yàlla yërëm fi de la culture et du patrimoine ensuite nekk na secrétaire général de l'école nationale d'administration, administration booy L.A. ENA avant ma directeur général de la fonction publique actuellement mais toujours secrétaire général du ministère de la fonction publique mais surtout membre du mouvement Bargny Sakana, membre fondateur. fi nga ndawee fi nga fi nga defee Bargny diggante Banoox bi Ngajee tali bu mag foofu nga defee sa ndaw. absolument absolument diggante cuuneen ba jonneen baxa jax yaakaar naa ne bóolóor lii gën a Bargny di def def

peut-être c'est important mais li ab solo pour man mooy euh, actuellement ñëpp yem ci Bargny parce que nous sommes dans un régime démocratique nous sommes dans une république même bu fekkee ne par le passé am na ay valeurs yoo xam ne ñu ñu ci jiitu incarné nañ ko ñooñu dañ leen di jël rek comme royukaay waaye duñ ko jël comme lu ñuy laxasoo pour wan ni ñoo ëpp lii wala ñoo ëpp parce que nit du ëpp mbokkam comme ni ko wolof di waxee. te bari ñi ñëpp ay mbokk lañ ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ku fi xas nit rek da fi dëkkul mais ku dëkk bari dëgg dëgg dëgg di nga xam ne koo rek sa mbokk nga laal occasion la pour man pour wax à l'endroit des des des ñu xam ne lii day jeex bu ñu jógee ci élection yi ñooy continuer ànd bokk ndey bokk baay parce que bari ñi benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar yow yaay euh, frère Euh, wala frère nga ci ki nga xam ne moom moo di le di de ëllëg Sénégal ci ji jiite euh, kuréel gi ngeen bokk sax di Bargny ca kanam di Alioune Badara Diop alors jamono bi euh, lan ngay wax ci moom moomee. waaw yaakaar naa ne li ma bokk ak Alioune Badara Diop du li nga xam ne moo gën a am solo en tout cas ci wàllu deret mais dama ko jël tey comme sama mbokk pas-pas. parce que mbokk deret bi dafay antu mbokku pas-pas ñëw euh, parce que mbokku pas-pas mooy ki nga xam ne yéen bokk lu ngeen gëm yéen bokk lu ngeen bëgg yéen bokk loo xam ne lii li ñuy wax vision donc damay jël li ma bokk deret ak Badara ma am ci fierté lool nag parce que mag moo xam ne mën nañ ko tiitaroo la mais damay jël loolu dàq ko mettre l'accent ci li nga xam dañu bokk lu gëm bokk pas-pas lo xam dañ ko jëlee si suñu wëjur nàmp ko fekk ko it suñuy maam ak ñi nga xam ne ñoo nekk seen biir di ko waxee di ko jëfe ñu fas yéene tegu ci ci ci ci fànn boobu fas yéene tegu ci yoon boobu parce que yaakaar naa ne mooy li nga xam ne moo gën a am solo. alors may ma yees lu waar lan mooy nekk tey jii nii sa porté wu témoignage. waaw témoignage bi c'est pour montrer rek gën a gën a wone opportunité yi nga yi nga xam ne suñu. mouvement di Bargny sa kanam mën na ko indi indil Bargny ndax nag dafay laaj ñu wax ak nit ñi parce que jamono tolli na foo xam ne yomb na trop nga am sa connexion 500 francs euh, connecté wu am sa Facebook wax ci nit lu baax walla wax ci nit lu bon mais man am naa respect ci waa Bargny respect boo xam ne bii xam naa ne image yi mën na dem ba Australie donc lu ma ciy wax et je suis un responsable xam naa fi may yem ak fi ma dul. nga dul dépassé porte témoignage bi mooy a ñaax nit ñi ci bu choisir ñu choisir koo xam ne xam na li def parce que mairie wala responsabilité de façon globale parce que am responsabilité mairie am responsabilité état parce que mairie collectivité territoriale la démembrement d'agit la ci état parce que li nga xam ne état bi mënul ñëw tey di ko gérer ci bari loolu la ñuy dénk maire mu koy gérer loolu du caaxaan dafa laaj ay prérequis manam loo xam wala loo mën ak jaar-jaar ci loolu laa xam ne il faut absolument comme bari ñi laa dëkk même bu ma fi dul yeewoo chaque jour am naa fi maakaan fi lañ suul sama wayjur wu góor samay frère a ngi fi samay mag a ngi fi samay rakk ngi fi samay mbokk ngi fi am naa devoir pour man bu fekkee ne am na bari ñi dañuy préparé bu ay jongante di tànn ko xam ne fi fii ak juróomi at yi ñëw ci kàttanu yàlla ak ndimbalam mooy mooy nekk jëwriñu dëkk bi yaakaar naa ne ñun obligation la pour ñëw pour ñu ñun ñëw sànni si suñu kàddu pour leeral nit ñi par rapport ak bi nga ne moom la def wax nga ko si membre fondateur yu Bargny ca kanam nga bokk waaye ñu bëri jàpp ni Bargny sa kanam mouvement la boo xam intellectuel PCS nekk maanaam ay cadre waaw laaj bu am solo la parce que mën na ëlëmal xelu nit ñenn ñi <clears throat> bariñ ci kanam xam naa ci ay mool ñoo xam ne ñu doon ànd di dem di nappi wala dem ci banoor bi di def di xale yëpp di def xam naa ci ay baykat xam naa ci ay sàmmkat xam naa ci ñoo xam ne ñii dañuy yeewu yàlla def na liggéeyu donc loolu gàkkal nit ñi rek la mais bu fekkee ne même dafa am ay intellectuel mais intellectuel yi ñëpp fii la ñuy

c'est un mouvement d'ensemble un mouvement global boo xam ne euh, même bu bëree ay cadres yi du ñoom dong ñu nekk ci biir te cadre yooyu kenn du leen bàyyi ñu dem ñoom rek parce que pour jiite ay nit doo leen nekk toujours ci seen kaw da dugg seen biir te loolu la ñuy wax management management des organisations et management des mouvements donc loolu yaakaar naa ne ku xamul wala ku déggawul ñi ni mu demee moo tax nga nga nit mën xalaat ni bari ñi ay intellectuel rek ñoo nekk ci mouvement bi mm-hmm. mais euh, je vous rassure ñëpp ñu ngi ci biir euh, góor jigéen mag ndaw euh, y'a toutes les strates de la société ñu ngi ci biir mouvement bi. lan mooy seen yéene ci Bargny. suñu yéene ci Bargny da nga koy xool ci sunu sunu credo maanaam li nga xam ne moom lañ jàpp ne.

Euh, mën nañ def campagne électorale te kenn du wax sa morom lu ñaaw kenn du wax si morom loo xam ne lii lu euh, teggine mais daal ñu li ñu ñor muy delloo bari li mu def ci ñun parce que ku fi nekk nii poste boo mën a am fonction boo mën a am teraanga boo mën a am c'est parce que dañ la dañ la dimbali fii ci bari parce que peccum liir bu neexee ndey yaa téye sa mbagg te ñii ndey yi mooy ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon booy jàng ñu lay encouragé boo sonnee boo ñëwee ci ñoom boo leen waxee seen soxla ñu taxaw ci donc fexe li nga xam ne ñun ñu meññ ñi nga xam ne bari moo ñu meññ fexe bari ñi ñor ñu fexe bari ñi ñor ñu ñu jéem a taxaw ci soxla yi nga xam ne moom la bari ñi am loolu mooy credo mouvement bari ñi sa kanam servir bari ñi et non se servir de bari ñi mooy lan mooy bañ a profité ci position yi nga am ci bari ñi mais jéem a profité ci position yi nga nekk pour jëriñ bari ñi parce que loolu rek a fi am. am na ñoo xam ne ñi bu leen falee maire def nañ ne fal maire ñu takk la takk la bandeau bi la tàcc la yóbbu la sa kër yaakaar naa ne loolu kuñ ko defal boo demee sa kër war nga tiit parce que di nga layoog sa borom nan nga gérer ñi nga xam ne leen dénk seen avenir c'est très important il faut nit ñi xam ne léegi les choses ont changé yaakaar naa ne boo gisee candidature yi ni mu bëree sax indice la loolu du jar na sant yàlla parce que cela veut dire que ne bari ñi cette volonté forte de changer les choses est là parce que li fi nous d'accord nañ ne doxul pas d'accord. kenn ci fait xam-xam bi xam-xam gestion municipale xam-xam bu wér la ont naa bu ne rek poste am xam-xam ba am yar gis nañ si ñi ne ci fait. rek parce que Badou wala keneen ku fi nekk maire it booy il faut nga am ay conseils yu nekk sa wet conseils yooyu ñooy ay commission santé éducation culture environnement pêche etc. cetera bu ñu paree commission bu nekk day def plan d'action plan d'action yi mooy nekk le plan de travail du maire te loolu pour def ko il faut nga xam-xam te aussi encore une fois bari li koy réglé nekkul Bargny lépp bokk parce que commune commune Sénégal yépp problème yi am mooy problème ressource te Bargny bariwul ressource ça veut dire que ne da nga war a dem wuti te pour nga wuti il faut nga xam fan ngay dem tubaab nee na il n'y a point de vent favorable pour le marin qui ne sait pas vers quel port il se dirige maanaam amul benn ngelaw boo xam ne dina jëriñ koo xam ne dafa nekk ci géej yor gaalam te xamul fan la jëm

j'ai une impression bu may am toujours bu ma taxawee sama kër bànni fële fenkoon euh, guddi xool jam ñaajo lamp yi leer ndañ ak stade bi infrastructure nga gestu gis bànni mu nekk dans l'obscurité image bu doy waar la gis bànni mu ne ci lëndëm te ku xam bànni ak jam ñaajo jam ñaajo alta la woon avec tout le respect bi ma am di fa dëkk mais dem nañu ba léegi sur le plan de la carte sanitaire bànni jam ñaajo la dépendre ci walu jang bari yeyef bu jam ñaajo la bok war nañ sétat suñu bok jam ñaajo gouvernement bi mo décidé def ko une sorte de métropole et derrière amna ben tableau bu ñu def ici commence l'avenir c'est très important wa lool nak da ngay fexé bok ci nan la bari mëna def wala ay kilifa yu bari mëna def ngir mëna tegat bari mais ubbeku ubbeku am ay ay ay responsable yo xamne xam nañ état état du tiaxane yor maire du caaxaan du toog lu fal la bu ngoonee nga ñibbi seen kër dem tëddi seen kër mabel lu lu loolu taxul ñuy wax da nga xam nit ñi lan la ñuy dugg dund xam ruux yi nekk bari yeeg ruux ruxaan yi li tilim ci dëkk bi nga jëm ko defar bu nit ñi bëggee faju mën faju parce que encore une fois abou sek taaxa euh, jibril fay euh, mes frères souleymane ak ibrahima ñun ñëpp ñun ñëpp ñoo bokk ndey bokk on dira jamais du mal d'eux ban ñi ñetti non la am ñett mooy feebar ñàkk ak rafle te ñett yooyu yëpp ngi bari loolu lu ñu war a pour xeex ko nag il faut nga am ñu am profil bi ñoo xam ne xam nañu lan mooy la science administrative ba pare jubboo ak seeni mbokk c'est très important jubboo ak seeni mbokk jubboo ak nit ñi ba li nga xam ne nit ñi bëgg nañ ko nga jéem ci taxaw parce que ku yaakaar ne maire yi da xaalis di ko joxe ay mille francs de boo yoroon milliard sa xaalis dina jeex te soxla nit ñi du xaj li nga mën def mooy fa ñi nga xam ne fa la ñuy nas ak nocc nga nekk fa xam ñan ñoo fa nekk am ak ñoom relation pour mën a jël foofu indi te loolu amul baat yi. wax wala nekk fa di nase ak noos. Hmm. Bargny dund na fi ay jamono ay situation yu doy waar ci wàllu avancée la mer. Hmm. ci wàllu centrale surtout en population bi lu doon hmm. wax ni ay doom nekk ci kaw maam dañoo ñàkk benn waaye lan nga wax ci loolu. xam nga fonctionnaire dafay am li ñuy wax obligation de réserve obligation de réserve mooy bu dara amee nga xam fan nga ci yem waaye ku mu ñu xam muy man muy Mouhamed Ndiaye wax ko sax Badara. muy Mohamed Ndiaye mu ños muy keneen en tout cas ñi nekk ci biir administration bi du lépp lañuy wax ci mett parfois dara Sénégal yëngu nit ñu ne kilifa diine yi du ñu wax pourtant ñu ngi wax am na fu ñu koy waxee ak du ñu xam ne fa la ñuy defee nekk fa ay influenceur du wax nga ñëw rek taxaw ci mbedd mi saaga wala ñu filmer la nga ne non à la centrale mais yàlla may nañu macha allah ñu nekk ci ay position yoo xam muy man muy Ousseynou Ba muy keneen. mën nañu waxee foo xam ne fii dinañ dégg lu ñu wax ba pare jëfe ko te duñu génn ci mbedd mi di ko wax mais Bargny bu ñu ko défendre fi ñu suul sa bàyyi suul fa say juróom-ñaari maam nga am fa sa yaay am fa say rakk boo ko défendre gisuma koy défendre donc yéen am na ay démarches koo wax ne bëgg nga ko bëgguloo ko koo wax ne bëgg nga ko bëgguloo ko koo wax ne gëm nga ko gëmuloo ko te défendre fi nga dëkk mais jàmm yàlla la bokk est-ce que am na ay action yo xamné dans ce sens jot ngeen ko jot jot ngeen ko def pour euh, faire améliorer ce dossier parce que on a vu que quelque part état bi ci yu bari yu mu doon wax wàcce woon na gardam wàññi ko. par par par par modestie. Mm-hmm. du ma jël mukk sama bop di teg lolu sama sama bilan wala ma koy teg ci bilan badu parce que dama yaakaar nit encore une fois lu mu defal ay mokam jarul mu koy ndamoo jarul mu koy ndamoo mais li am solo rek le premier ministre de na Abdallah centrale bini, nii centrale à charbon centrale gazière lañ ko def loolu dégg samay nopp yaakaar centrale bu légui démarré wul man personnellement initiative parce que si Seck sama xarit la je de l'amitié qui nous li. centrale am na feneen boo demee tey ñaari communes yi nga ñoo ñoom lañ gën les communes les les où il y a des maires qui sont les meilleurs en termes de résultats ñaari communes. la mooy Sandiara ak Malikounda Malikunda. ka ko yor dem na ci sini ne ko yéen da ngeen dem malikunda ñom am nañu centrale bo xamné centrale solaire la la mairie est actionnaire là-bas mairie bi commune sa euh, commune malikunda chaque mois ou chaque année am na bu bari

te bañ fa nekkee et yàlla dimbali ma ka ma fa remplace bari ñu la dëkk muy gouverneur Cheikh Tidiane mm-hmm. man maa ko remplace foofu mais bañ fa nekk déggu leen fa benn coow parce que fexe nañu lëkkal lëkk lëkkale ña fa dëkk ak entreprise ya fa nekk ba nit di si gis seen bopp est-ce que c'est le cas actuellement entre ñi et Sococim mm-hmm. gis naa sax ñu def benn interview ne Sococim mu ngi dugal deux cent cinquante millions à Bargny dëkk Bargny les emplois emplois yaa ngi ne gàññi nangam ak nangam man dama bëgg laaj

Ah, donc euh, une bonne partie des impactés donc, de région côtière au bord, sur nos parents de Barnigué, yóbbu une ville verte c'est mm. pas réalisable parce que c'est avec ces mêmes moyens avec déjà la le milliard que Sénélec euh, dugaloon ci euh, compenser mbiru centrale bi faire une ville verte boobu bon vous savez des projets il faut les partager gis nga je pas. man les loo may te ne lu pas. te waxtaanoo ceeg man tu es contre moi

ndax nit ñi da ngeen wax nit ñi dañuy wax nit ñi li nga xam ne moo am jamono weesu na bi nga xam ne da ngay ñëw toog wax rek dem làkk tubaab ñu kenn gënuñu dégg tubaab moom lañ nàmp moom lañu wax mais li ñu wax nit ñi loo xam ne nit ñi mën nañ ko comprendre milliard boobu anamu kan lañ ko jox yaakaar naa ne boo jëlee xaalis dugal ko sa budget gérer ba at mi jeex war nga def li ñuy wax un compte administratif un compte administratif moy organe délibérant bi Madame conseil municipal bi moom moo lay autorisé nga encaisser ay recettes mais boko dépenser, ba paré da nga wara a ñëw né xaalis bi ngeen autorisation yi ngeen ma joxoon pour ma dépenser ni ak ni ak ni la ko défé est-ce que ça a été le cas je ne je n'en suis pas sûr am na benn genre espèce rigole benn defal barki géej mais pour envie. waaw y ne a 480 millions 480 millions. Avec Eiffage déjà. À nga la il faut l'appeler comme ça. pourtant investir nañu faut nañu faut def travaux chantier les ngi oui mais mais mais le résultat par rapport à l'ampleur de l'investissement c'est facile à regarder xam nga avez le lit vous avez le lit, da xool dimension bi ak portée bi ak importance bi par rapport au vécu des populations ñun bari géej la ñu màggee bari géej bu jëkkoon ci suufu pont bi ay nag sax dañ fa daan jaar fa lañ daan defe lépp foofu làmb daan dafa am daan na amoon na terrain football mu ñu doon ñuul nga ñun fa lañ daan football mais aujourd'hui dañ ko yàq dañ ko yàq façon boo xam ne bii ndox mi dematul ba pare muy parce que canal boo xam ne bii ça fait même pas un mètre de mu war collecté ndox mi joggé baax jax ndox mi joggé beet ndox mi joggé beet xam nga xam ngeen beetam dé mm-hmm. gannaaw ah. wetu bata waaw joggé fofu joggé mm-hmm. mais ce n'est pas sérieux ça Bargny mosul salté mosul salté parce que ndox mi joggé euh nu mu tudd barrage bu bu bu bu géej bu barrage bënnee mais moo yóbbu suuf moo yóbbu lépp doo ko ci biir géej d'autant plus qu'il y a un danger parce que ci li ñu seetlu day experts wax nañu ko Euh, ndox mi nga xam mom doon génn fofu di jóge beet bi ko lal moy ba ngay jóge jàmm gën gannaaw bata dañu gis ne fofu dañu commencé di rembler li nga xam mo jëm ci booru quai bu yees bu fa tabax c'est le même les mêmes conséquences les mêmes effets dafa am un phénomène d'écoulement naturel ndox du fàtte yoonam tout ça ce sont des projets sur lesquels il faut réfléchir ba pare demander ñi fa dekkone bari ñi am na ñoo xam ne ñi foofu di mel noonu fekk nañ ko parce que dafa am lu ñuy wax un savoir empirique moom ngay boole ak scientifique ngeen mën a liggéey boo demee fële nga bëgg fa jaaral dara muy impacté nit ñi da ngay waxtaan ak nit mais loolu amul dañuy rek indi ay commencé ay loolu affaire yi ils sont suffisamment informés pour comprendre nan encore une fois pour revenir au choix qu'on doit faire da choisir d'adresse maire bi ñoo leen maire Dakar sax rire. pourquoi à votre avis les électeurs donc Bargnois ont a que ki nga ne Aline pas Diop. c'est absolument ce que je parce quau delà de Badar job, il y a toute l'équipe qui est derrière Moi, j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour l'équipe qui est derrière Bantouli c'est des gens de qualité il y a au moins deux directeurs nationaux dans dans, dans le groupe au moins et d'autres experts dans plusieurs autres domaines regardez les listes des autres c'est le grand vide il y a encore une fois nous restons barni, moi je règle le problème au barni. en tout cas pour le moment ce qui peut faire avancer barni, c'est de mon point de vue compétence et persévérance fexe ba dëkk bi le <coughs> camion mbalit peut-être moi fi am nga am ñaar bu fekkee ñaar fi am nga am ñett ordinairement normalement et régulièrement faire dëkk bi l'air wàññi insécurité bi fexe aussi mu ay projet yo xamné yi duñu xaar ba port bi commencer fonctionner waa Bargny di jóg di barrer circulation parce que jëluñu doomu Bargny faut former les gens au futur métier du port et pareil aussi le maire de Bargny doit avoir quelqu'un qui a une un bon carnet d'adresse xam ay nit yo xamné ne fa ñuy décider xam nañ ko te loolu xam nañ ko réew mi ñi fi ñi fi décider mais bu ñu bokkul ak bu leen xamul it ñoo bokk ak ñoom jàng duma ci mën naa ci lim lu mot cinquante personnes am na ñoo xam ne fii ñu ngi laaj maire bi bés bu nu leen falee maire bu nu demee Dakar duñ dugg parce que fa ñu dugg di jël ay décision ñoom yegguñu fa xamuñu ko maire kenn du essayé loo loo xam lay doon yàlla def na mu ñuy suturaal. ñu ci bari ñu nekk ci mouvement bi commencé par un Badar Diop fa muy dem toog di wax ak fa muy toog jël ay décision bokk ki lu du ma sax nombre de conseil d'administration administration yi ñu bokk tey la mujj ci suba autorités yi nga xam nous ak ñoom am ak des relations personnelles professionnelles plus maintenant des partenaires extérieurs j'en profite pour nuyuwaale suñu mbokk yi nekk euh, la deuxième je vais appeler ça la la deuxième commune de Bargny mooy ñi nga xam ne gens dëkk nañu ça safoo Bargny mais nekk à l'étranger ñoo ñëpp dañu war a ku nekk su rôle Bargny dafa soxla que mu toll nii te dëkk ce que nous xam ne Cette responsable c'est responsable de l'engagement. chaque génération trouve sa mission soit elle l'accomplit ou elle la trahit nous ne voulons pas rater notre mission qui est de Bargny Barigny. que ci ay loxo le set le yo xam fañu jëm xam nañ ko. da ngay convenir ak euh, euh, président Mar Diouf euh, qui donc lors d'une sortie de soutien dafa biral ne Badara Diop Alioune Badara Diop a le meilleur profil ñu lu ni ko ci ñenn ñi nga xam ay ministre lañ ministre maire ministre maire d'autant plus que dañ ko doon wax ne il faut mu nekk fu ñu xam ne ñuy dañuy nekk ci fa ñuy décider est-ce que day firndel que ni Bargny lu mel noonu la sox mais Bargny absent des centres de décision. Barnier est absent des centres de décision, là où les choses se décident. Barnier n'y est pas. Ça, je vous le dis, dans le blanc de l'œil. Barnier, il faut nous décider, Barnier n'a pas fait. Wahma, quel qu'on a qui, nous, tu bi, il dit qu'il toog décider. ah et pas sous maire bi nga xam directeur de cabinet. oh moi j'étais directeur de cabinet. J'ai été directeur de cabinet pendant trois ans. le directeur de cabinet c'est un peu la doublure du ministre il s'occupe des problèmes personnels du ministre. Ce n'est pas une fonction hautement administrative. dama nekk directeur de cabinet ba pare secteur secrétaire général Badara nekk directeur de cabinet le secteur général nekk far le secteur général adjoint du gouvernement maanaam fi ñuy bind texte yi nga xam organiser la vie au Sénégal dans tous les domaines Fofu la nek bokku la ko xam ki da nga top nit di ko du ben ma nek la directeur de cabinet c'est pas la même chose les actes yi nommé directeur de cabinet sama bureau lay jaar en tant que secrétaire général du ministère de la fonction publique parce que c'est le contrat. pour ñi nga xam nous sommes ay fonctionnaire contrat est mon bureau lay jaar. donc lolu mënul andil apport bu barnier ñi. dara non je ne pas ou bien s'il y a un apport c'est très minime En fait, c'est toujours des relations ño xam Ils xam il compte il décide waxuma rek Sénégal rek mais à l'extérieur. extérieur a eu la chance de connaître connaître le monde pratiquement, de connaître beaucoup de gens, d'avoir des partenaires espagnols, des partenaires français, etc. Des gens qui comptent sur l'échiquier. Actuellement, Sanjara, pour revenir à Sanjara, mais dans les moyens lourds, Sanjara, pour la mère, donc, c'est une job de tout. Mais actuellement, il fait même travailler des Espagnols dans des champs. Aujourd'hui, nous sommes en Espagne pour liguer. Mon les espagnol fait de liguer. Nous liguer li ñuy Espagne mënu ko guddoo la ci li Espagne soxla. pourtant maanaam day exploiter potentiel économique. mais non seulement mais dafa xam lan moy une mère dafa xam qu'est-ce que ça signifie dafa xam qu'est-ce que ça signifie il a un profil dafa dox dafa am trajectoire mais ko amul trajectoire mënu yor mère mënu yor mairie Maguette Sen, li muy administrateur civil la ñoko jitu jiitu enaa fuuf. Mais il fait un travail extraordinaire. Le président de la République l'a cité en exemple. Il dit à tous les maires, inspirez-vous de ce gars-là, ce maire. Parce qu'il change le quotidien de ses populations. Aujourd'hui, il y a un hôtel Nous avons des formations pour que, si nous parlons, ñu nous ci dëkk bi ñu mën nous jël poste ya fay Pour nous, bi année, ñu Nous xam la mooy am suba dem barré tali parce que dañ naan ñu faire feneen ñoo ñëw jël poste parce que ñu dara pour préparer nit ñi

ndax bari ñi euh, xam naa kilifa bu mag yàlla suñu borom seral ay yaxam foofu tëdd parce que baax la daan wax ne bari ñi c'est un quartier de Rufisque man ba léegi bu ma laajee mu ne bari ñi daal dëkk ñun ma Rufisque su ma damay réagir parce que Rufisque ak bari ñi du benn bari ñi mu ngi bokkoon ci une commune qu'on appelle la commune de Rufisque am ñu xeex nit ñu baax dinaa ci cité ku mel ni Mandione Guèye yal na yàlla yërëm ko fa mu tëdd boobu mooy directeur de l' aménagement du territoire ak ku ñuy wax soxna Fat Ndoye yaakaar naa ne doomu Baye Thiat Ndoye la euh, mooy soxna bu Moussa Ndoye bu nekkoon ministre de la décentralisation ay nit ñu baax des hommes de valeur ak Mar Diouf mi ak yeneen i mag yu mel ni Mamadou Aliou Ndiaye Fall Ndiaye yal na ko yàlla yërëm moom it bëgg Bargny fonk doomu Bargny mm. fonk doomu Bargny ba fu ñu affecté doomu Bargny mu nekk responsabilité mu dem seeti ko ñoñu ñoo xex ba mu am un tiré entre la commune de Bargny et la commune de Rufisque mu nek commune de Bargny Rufisque ak Mar Diouf ñu xex ba mu am la commune de Bargny Bargny am nek une commune de plein exercice ku la defal loolu waccu na ak yow loolu doyul Bargny lan mo fi am tay boo doon cartographie les infrastructures en am c'est 17 km de route C'est très dégradé le préciser c'est quatre postes de santé. C'est un stade municipal. C'est un bâtiment abritant la mairie. C'est une bibliothèque municipale qui est comprise dans la maison de la femme. C'est un marché rénové. Euh, c'est essentiellement ça à Bani. Hein? centre El Hadj Ndiouga Dieng. El Hadj Ndiouga mais nous lépp lan la fi maire bi yokk boobu l'équipe municipale je ne parle même pas du maire l'équipe municipale bi fi jóge lan la fi yokk boobu ak léegi. mais daggat nañu place yooyu def euh, donc euh, la maison de l'innovation et de l'entreprise entre autres. lan de nous innover ak lan ce entreprendre c'est le résultat qui compte nous sommes dans ce qu'on appelle le budget programme Le budget programme ni n'est c'est plus une gestion par les moyens mais une gestion par les résultats Ce mën a wax c'est amuloo résultat nit ñi on conserve des fonds dara Té est très, très, très en retard, je le dis face caméra, par rapport aux différentes communes du Sénégal. Il se passe rien chez nous. Il se passe rien chez nous. Vous voyez le ministre ñëwé bala mu fi ñëwaat Mais parce que on ne propose rien. On ne propose rien. alors nak lañ bëgg mu changer dans le cadre du programme bani sakaram pour faire de Bani une ville beaucoup plus attractive. Donc derrière Badar on a rek Mar Diouf bu bëgg Non non non, ce n'est même pas possible programme bi fi nek Bargny sa kanam moo mom c'est un programme consensuel élaboré de façon inclusive et participative Mar Diouf li mu liggéeyal Bargny liggéeyal na ko Bargny am na loo sax du ko wax face caméra mais li gën am solo moy Mar Diouf ni mu ñëwee supporter mouvement Bargny sa kanam Non la yeneen entité ñëw supporter sa kanam c'est un collaborateur qui vient collaborer pour l'avènement d'un projet. Il ne s'agit pas pour nous de prendre notre programme et de dire à Marc, monsieur le monsieur le président, dites-nous qu'est-ce qu'on va faire. dëgg yàlla nag li wax ne ku say gëlëm ay ay ñun maturité une expérience si vous voulez, vous bu mais c'est le groupe Nous avons l'état, l'administration, administration comment ça fonctionne si tu ci à 25 ans et pas à des niveaux de euh, toujours très opérationnels mais à des niveaux de conception d'analyse de direction donc il ne s'agit pas d'appliquer un programme conçu par Mar Mar ce n'est pas pour utiliser Badara pour le bari c'est impossible mais li ñu waxante boo ko teggi woon encore une fois man maa njëkk opposé wu ak moom te du tere bu nekkee ci kaw bu ñu dellu si ci kër gi ma toog ci suuf mu toog ci kaw parce que ba àddinay tukki incha allah moom laa bëgg mu nekk suma kilifa loolu leer na parce que mag bàyyi la donc ay principe la ñu ànde jël affaire u famille teg ko nele ay principe ak ay valeur moom la ñu gëm moom la Mouhamed Ndiaye gëm moom la Yos gëm moom la Youssou Gueye gëm moom la keneen ak keneen ak keneen ak keneen ak keneen ak keneen gëm avec Bargny sa kanam ak euh, ëllëg Sénégal lan lañ mën a jàpp ni moom mooy innovation yi war mën a séntu bu Aliou Badara monsieur le ministre faire en sorte que Bargny bu feebar mën faju man je suis scandalisé je suis déchiré quand on me dit que maternité Bargny bi toll na ay jamono yoo xam ne yi ku am doom yaa indaale ndox wala nga indaale moustiquaire am na fi ay jamono yoo xam ne képp koo xam ne kii bu ñu lay recruter fonction publique xëy na yenn yi sax waruma ko wax ci caméra parce que day nuru leneen mais ñëpp bari ñi lañ doon juddo mais léegi nit ñi juddootuñ bari ñi te ñu dem juddoo ñu ci fexewoon woon nañu ba nit ñi léegi di juddoo bari ñi mais loolu gàcc la. ndax njëriñ bi maternité bi am. absolument on avait un plateau moderne de qualité. bi fi ñoom yaa ab bi fay di nekk fii. nek ay matron mhm. mamam jàppali fi ci Madam madame Senghor ñu koy wax madame Senghor ak yaayu Adama Seck soxna su baax si gaañu temps yële passé la ko yàlla yërëm mhm. mais bari ñu été respecté loolu fii lañu fekk xam nga ñun dafa am lu bëri lañu fi fekk nit bu la yàlla dimbalee nga dund ba am euh, juróom fukk at ci ben dëkk yaakaar na ne xam nga ko ba pare jaxasoog nit ñi parce que tëjuñu dañu yar ñëpp li ñëpp di def baa def nañ ko wax naa la ci début interview

on les appelle des apatrides maanaam parce que ñu war ba nit ñi jang jang mo yor pour nit ñi nak ñun bi ñu lycée était un d'excellence c'était rare nga dégg concours général bu Bargny amul prix kañ la ko gëy ab dëkk am prix ci ñom ak ñom jaraf lu am prix mais c'est parce que quelque part am na lu ñu war a def ci suuf loo xam ne defuñu ko dañuy fexe nag nit ñi écoles yi ñu defaraat leen ba ñu nekk des écoles fréquentables c'est très très important mais Paris fexe aussi ku dem école mën fa toog mais loolu il faut créer les conditions. justement ñu gis ni fële ci école d'art bi am na effondrement bu posé la. mais il y a même il y a même des abris provisoires mm-hmm. mais je meurtri naturellement dëkk Bargny bu buñ ne la Bargny dafa am ay abris provisoires. ñoo à 39 kilomètres du palais présidentiel. Nous avons des abris provisoires. C'est inadmissible. Et pourtant, il y a les moyens de régler ces problèmes. Je peux comprendre que les localités éloignées, moyens établis que tout le fait, nous avons des abris provisoires. Encore que le gouvernement fait un effort incroyable pour résorber ces abris provisoires. Mais il faut que nous nous régler l'eau. Parce que bon, moi qui ai fait les régions, on les abris provisoires dans les, dans les zones, pour quelqu'un comme nous, moi, mais c'est un day daw donc l'eau c'est des problèmes qu'il faut régler très très rapidement il paraît que le c'est n'est c'est pas admissible C'est mm-hmm. ben, ben, une famille de coopération décentralisée pour mm-hmm. mon maire qui vient de de de la France mm-hmm. depuis sept ans nous benn action de gis ci ñuy àmbar ni coopération décentralisée il faut il faut être représentatif il faut être crédible pour pouvoir engager des partenaires c'est la crédibilité quand tu n'es pas crédible mais ku le, parce que ni def coopération décentralisée c'est pas des bons samaritains il y a non seulement la coopération décentralisée mais il y a ce qu'on appelle le, les partenariats public privé les PPP c'est encadré c'est encadré il faut un projet structuré projets structurés yoo xam un nga spécialistes consultants

10 promesses que ñu fi et euh, potentiel de jeunesse en tout cas te exploité ñu mm-hmm. tu vois, le football basketball lamb ak yeneen discipline sportive mm-hmm. lan nga lan en fait le développement de Paris, surtout euh, le marketing territorial à travers le sport. mais vous allez dire que j'aime le terme catastrophe Paris est une catastrophe aujourd'hui il y a un émiettement du mouvement sportif nous avons fait ñu foolee nawetaan après nous jeex ku nekk dem ñi organiser organiser dem seen Le stade bi ni mu ça n'a de nom que de stade c'est un endroit clôturé am une tribune mais n'y a rien Il n'y a rien du tout il paraît même ils ont nommé un directeur de stade qu'est-ce que le directeur du stade va diriger parce qu'il y a rien il y a rien dans le stade il faut offrir aux Bargnois la possibilité Bargny dafa une équipe de foyer boo xam football ne fait ak un match épique coupe du Sénégal il reportait ko ñu nous ñu may que xam Bargny fekk nañ match yooyu Bargny dafa une équipe fanion léegi est divisé Bargny est divisé sur tous parce que amul un espace qui peut permettre de faire éclore des talents pour les porter il y a des jeunes qui sont là qui ont des initiatives mais kenn jàppalewu leen il y a des écoles de football mais kenn jàppalewu ailleurs Il y a ay gazon synthétique

On ferait repositionner Barni, jël le wagon de Barni, collé ko sur le train de l'émergence, émergence muy locomotive bi locomotive bi yóbbu loolu rek la justement avant ñuy mu ñuy déporter peut-être vers des lendemains meilleurs ci fàttali rek maire bu maire bu escalité maire bo xamné euh lañu ko denk xam na ko nu mu war mel ci yow ci sa xalaat. ubbeeku am xam-xam encore une fois maire bu amul xam-xam do leen.

yaakaar naa ne bu la sa papa jiitoo boo dajeek moom di ko layoo. di nga am kersa di nga am kersa. te def politique bi du wut loo am mais wut loo dimbalee say mbokk la. muy delloo si waat seen parce que nit mais absolument nit du ëpp mbokkam. fii lu fi nit defal moo tax parfois ñu ne wéy di wutal na nit liggéey man bus naa man Mouhamed Diop di bari ci liggéey parce que sama bopp laa ko defal kooku koo xam ne kii la ëllëg. bu ma ko dimbaliwul mu dimbali keneen wala ku war a ñëw ci man pour ma dimbali la boo yemee ci moom mu dimbali la loolu mooy sensu engagement citoyen ñu loolu lañ gëm gëmuñu defal dara génn di ko wax nit boo defalee dara ba pare génn wax ko amatoo ci yàlla amatoo ci dara. looy tàggatoo ndaxte yëgsi nañu ci cëppaandu euh, entretien bi nga xam ne tey jii nii accordé nga ñu ko ñu am ci honneur lool ñu bàyyi la nga tàggatoo ak ñi nga xam ne ñoo lay seetaan. xanaa rawatina doomu bari yi. di fëddali sama cofeel doomu bari yëpp. parce que fi laa bokk di wax na ñun ñëpp ñu bokk ndey ñoo bokk bàyyi ñoo bokk lu ñu bëgg te au finish li bëgg mooy bañ ñu changer bañ ñu dem ci kanam tous les candidats tous tant qu'ils sont ñun ñëpp ñu bokk ndey ak bàyyi xamante nañu miinante nañu nañu warmaalante ci campagne bi ba kenn bu wax sa borom loo xam ne lii bu élection yi jeexee di nga am gers parce que Bargny kat ñun ñoo fi fanaan ay doomu Bargny lañu waye nit ñi dañu ragné né candidat yi actuellement ñi fi nek légui légui ni su ma doon joxe ay voix dinaa jox Badara 100 voix jox peut-être sama xarit sama mag Ousseynou Ba 50 ñi ci dess ma jox leen ñu seddoo li ci dess parce que ñoom laa laa gis ñu am profil boo xam ne bii euh, mën na jëriñ bari bu fekkee ne en terme de relation ak en terme de connaissance de la science administrative mais comme aussi nu ñoo ko gën a jeune gën ko ñeme gën ko xarañ fi mu nekk nii gën ko bokk ci système bi na pousse rek bàyyi ñu dem avance moom après ñu woo ko mu ñëw bokk ci. jërë ngeen jëf donc lii mooy entretien bi nga xam ne moom lañ doon amal ak euh, euh, Mahmoud Diop mi nga xam ne euh, daanaka kilifa la ci réew mi waaye doon tam ñi nga xam ne ñoo sañ ci ca kanam di leen jox dig daje incha allah ak beneen jamono. J'ai pas dit de bêtises. Hein. Non, non, non, non, du tout. On vous écoute. Barnier, une ville éminemment culturelle, je suis directeur de cabinet du ministre Abdelaziz Abdelaziz euh, Mbaye. Euh, nan nga gisee ma posture Bargny si wàllu culture. y a un foisonnement à Bargny. Bargny culturellement puis j'en profite pour saluer mon ami Seb, un éminent. Abdoulaye Abdullah Abdoulaye Sen, un éminent homme de culture qui est actuellement à l'étranger et qui fait beaucoup pour Bagni. Alors Badni, c'est énormément d'artistes. De, hein. Comme euh, Mandela, comme Soumakharit Adi, comme euh, euh, Papis. un mon bureau de fa table tableau peinture Pareil. Euh, ñu may ma ko mu nekk lu rëy ci man fu ma dem tableau boobu dama koy yóbbaale parce que c'est une partie de moi-même qui m'a été offerte par des gens de Bali. donc sur le plan culturel tout le monde culture léegi nit ñi dañuy def ne fo ak fo ak fo fecc ak rek la mais culture c'est on parle maintenant d'industrie culturelle mm-hmm. industrie créative bu am une valeur une valeur bu euh, créer une chaîne de valeur bu am une plus-value extrêmement importante. Mais l'eau faut l'organiser dans le cadre d'une euh, d'une commission culturelle parce que nous sommes ñoo nous a wax ñoom lan lañ bëgg boo leen dégluwul il faut que déglu leen jéem leen insérer dans le dispositif et la culture aussi c'est la lecture il faut lire il y a une direction au niveau du ministère de la culture c'est tout DLL direction du livre et de la lecture mais tous ces gens-là nous on les connaît on est très familier on les embarque dans un projet. Ils vont essayer d'appuyer Barnier, le directeur des arts, etc. Donc il y a énormément de possibilités du point de vue culturel à Barnier qui sont sous-exploitées. Parce qu'il n'y fait une culture que Parce que la culture est au début et à la fin du développement, comme disait le président Senghor. Donc c'est important qu'après, nous avons même des journées de réflexion même sur la culture. Comment repositionner la culture de Paris, je pense sur l'échiquier national et international, parce que des possibilités sont là. Et j'en profite pour saluer mon ami qui est à Genève Sec, qui fait un travail extraordinaire. Maman, j'ai eu le privilège de le rencontrer sur place là-bas, mais c'est une sommité et qui fait beaucoup pour Barnier à travers École Moi. Ce sont des initiatives qu'il faut encourager et qu'il faut amplifier. Et je crois que l'OLEP, ça demande une réflexion de mettre tout Barnier autour de l'essentiel pour aller vers lo xamné li ku ne na ci loxo et très rapidement merci. on vous écoute. Bargny une ville éminemment culturelle nga le directeur de cabinet du ministre Abdelaziz Feu Abdelaziz euh, Mbaye euh, nan nga gissé maam posture Bargny sur la culture. y a un foisonnement à Bargny. Bargny culturellement puis j'en profite pour saluer mon ami Seb, un éminent Abdoulaye. Euh, Abdoulaye Sen, un éminent homme de culture qui est actuellement à l'étranger et qui fait beaucoup pour Bani. Alors Bani, c'est énormément d'artistes. De, hein, Comme euh, Mandela, comme Adi, comme euh, Papis. mon bureau vous avez demee tableau ba fa nekk moom moo peinture nous euh, may ma ko mu nekk lu rëy ci man fu ma dem tableau boobu dama koy parce que c'est une partie de moi-même qui m'a été offerte par des gens de Paris. donc sur le plan culturel tout le monde culture léegi nit ñi dañuy def ne foo ak foo ak la mais culture c'est on parle maintenant d'industrie culturelle mm-hmm. industrie créative bu am une valeur une valeur euh, bu créer une chaîne de valeur bu am une plus-value extrêmement importante. Mais il faut l'organiser dans le cadre d'une commission culturelle. Parce que nous donc nous pouvons dire nous lan lañ bëgg xam lan lañ il faut que nous leen insérer dans le dispositif et la culture aussi c'est la lecture il faut lire il y a une direction au niveau du ministère de la culture c'est plutôt DLL direction du livre et de la lecture mais tous ces gens là nous on les connaît on est très familier on les embarque dans un projet pour qu'ils ils vont essayer d'appuyer Barnier, le directeur des arts etc. donc il y a énormément de possibilités du point de vue culturel à Barnier qui sont sous-exploitées parce que culture que la parce que la culture est au début et à la fin du développement comme disait le président Senghor donc c'est important qu'après nous avons même des journées de réflexion même sur la culture comment repositionner la culture de Paris, je pense sur l'échiquier national et international, parce que des possibilités sont là. Et j'en profite pour saluer mon ami qui est à Genève Sec, qui fait un travail extraordinaire. Momar, j'ai eu le privilège de le rencontrer sur place là-bas, mais c'est une sommité et qui fait beaucoup pour Barnier à travers École Moine. Ce sont des initiatives qu'il faut encourager et qu'il faut amplifier. Et je crois que l'OLEP, ça demande une réflexion de mettre tout Barnier autour de l'essentiel pour aller vers lo xamné li ku ci loxo et très rapidement merci